ba tax na euh, euh, Guy Marius Sagna cantan gërëm ngërëm dina la ñeel xam nga lu tax léegi li nga wax dama ne su ma toogoon léegi rek loolu lay wax amoo leen pour ñu gërëm leen amoo leen pour ñu sant leen parce que comme ni nga ko waxee ndawal réew mi ngeen moo xam njiita réew mi ba ci suuf ñu nekk ci institution yi képp koo xam ne nii rek surtout ci yéen ñi nga xam ne askanu Sénégal ñoom ñoo voté pour ngeen toog ci place bi tey ku ci nekk ci yéen rek da am loo waroo ak sénégalais yi moo tax lii nga wax dama ci ànd ak yow ndawal Sénégal nag moo gën a wóor parce que bari na ci ñu mel ni yow ñoo xam ne nanguwuñu tey li nga nangu mooy nanguwuñu ne ay ndawal senegal lañu nanguwuñ ne fañ dem tey ci péncum ndaw réew yi di dagaan wala sax di waxal askan wi askan wee leen fa teg. kon tey boo ko nangoo dañu naan cant ak ngërëm ñeel na la parce que lii na ñu li tax ñu koy def mooy ñaax sa yeneen moroom yi wan leen ne leen député bi ci ginnaaw askan wi waaye tam ci kanamu askan wi la war a ne tey jii bu askan wi génnee di naan lacrymogène ñoom député yi ñoo ci war a jiitu su fekkee ni ay gor képp lañu te xam ne li leen fa yóbbu askan wi askan wee tax ci loolu aussi sama ay wax nag dama koy accentuer ci ñett mbir mooy ci ñun les chroniqueurs les journalistes les hommes et femmes de médias mais aussi wax at ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Sénégal wax aussi ñi nga xam ne nii ñoom ñoom ñoo bëgg dëgg ci àdduna wërngal këpp tey duñu ay sénégalais may jiite jiital ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy taskatu xibaar yi yéen taskatu xibaar yi seeni ay mbokk tey jii ñoom ñoo toog tëral lii tey di bi tey jii nag ñoom ñoo leen di woo buntu bi tëjuwul ci kenn dañ koo ibbil ñëpp képp koo xam ne taskatu xibaar nga ak foo mënti féete xamal ni ci lii danga cee bokk kenn beddiwul kenn dañoo bëgg a àndandoo doon benn say daldi libeere libérer le peuple démocratie dellu ca fa mu nekkoon fii ci biir Sénégal te xam nañu ne bu ñu nee taskatu xibaar war nañu koo mën ci bu ñu boolee sunu ay doole moo tax bu kenn bedd kenn sànq guy wax na ko tey ñu ngi dem ci terrain bi ne dañuy liggéey ndax ñan këru média yu ñuy liggéeyee mais tey ñun ñooy dund lu metti ana ab sa aan barki démb ana keneen ak keneen mais du yéen a ngi gis ay nit la ñuy rey ay doomi aadama comme yéen ay sénégalais comme yéen la ñuy tiire ay balu fetal ñu daanu maara day taali kenn ñaanu ko suñu borom yàlla bu ko yàlla def te yàlla bu ñu dund lu ni mel mais jël leen seen bopp ngeen teg ci ñooñu tey daanu martyr yooyu bu leen jàpp ne rek seen caméra yii ngeen yor da leen a sauvé bu leen jàpp ne seen live yi ngeen def da leen a sauvé bu leen jàpp ne li nga xam ne tey ji moom mooy seen euh, gilet de presse yi da leen a sauvé déedéet sauvé wu leen ndax ñu ngi leen di maltraité ci ci ci terrain bi te suñu yàggee suñu bàyyee noonu bu yàggee li ci des moom mooy def leen comme ni def tey ji martyr yi te ñaanuñu ko suñu borom yàlla kon nañ leen jóg taxaw àndandoo ñoo bokk benn lu ñu bëgg moom mooy Sénégal am jàmm ki ñu ne dictateur la dafa toog pour di dicter sénégalais yi te loolu xam nañ ne sunu maam yi dañ ko doon bañ ba heure bii nañu àndandoo di ko bañ te yàlla képp tax te su ma nee Salma nawle mu ne ma nawle dañoo ànd ñun ñaar ci ànd gor ak nawle kenn du sàq man ak moom ànd gor ak boobu nag. buñ nee pacte dañ naan yëfi tubaab la mais dañu koy wax ci olof mooy dañoo ànd ànd gor ak nawle ànd boo xam ne nii dara duñu tàqale ànd boo xam ne nii dañuy muñalante waaye ànd boo xam ne nii mooy du suñuy doom a tax du suñuy borom kër a tax du keneen a tax askanu Sénégal moo tax parce que kenn mënuñu cee génne loolu nag buñ ko dee wax dañu ne soo ne diw damay ànd ak yow nee ko nañu ànd ànd gor ak nawle te loolu noonu ñu def tey moom la sunu mag yi fekke tey moom la sunu góor ñi fekke tey moom la ñu ne loolu ngeen di woote dëgg rek la ak fulla en commençant par par Mame Birame Serigne Saliou Gueye Cheikh Ndiaye ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci biir panel bi ñu koy waxtaane ci dëgg ak fulla loolu nag tey buñ ko taxawalee dañ ciy jiital tamit askanu Sénégal bi nga xam ne yéen lañu ne dañoo toogoon ay at di leen servir ci nekk ku deful 10 ans def na plus de 10 ans ci télé wala ci rajo yàgg leen a servir toogoon di wax ci dëgg ak fulla toogoon di yeete ci lan moo am ci information yi tukkee ci nguurug Sénégal jëm ci askanu Sénégal ñu leen di woo boobu ba tey mais nag woote bi dootul yem ci derrière les caméras ci ay télévision ci ay live ak yeneen ak yeneen oote bi dafay jéggi foofu te bu fa jegee dañuy dindi suñu kasketu ay journaliste ak chronique chroniqueuse mooy dañuy doon ay sénégalais ay dëgg-dëgg sénégalais yu bëgg dëgg bëgg a taxawal dëgg te bëgg taxawal dëgg bokk na ci ne 12 ans yi nga xam ne régime bii mi ngi fii deful fulla waxul fulla deful dëgg waxul dëgg askanu Sénégal ñoom ñooy ñi xiif ñoom ñooy ñi mar ñoom la ñuy euh, euh, xañ seen àq ak seen yelleef ñoom la ñuy noot ñoom la ñuy dëggaate ci askan woowu la ñuy jël ñi nga xam ne ñoom ñooy ay frustré ci askan woowu la ñuy gis ñi nga xam ne dañ leen di faat xamuñu woon bal ci bopp wala bal ci dënn nit ki dee xamuñu ko woon ci film yi lañ ko daan gis tey askanu Sénégal ñoo koy dund pourquoi pas am ñoo xam ne dañoo jóg ne dañuy bañ loolu pourquoi pas am ñoo xam ne dañoo bëgg li ñu doon dundee ëllëg ak gannaaw ëllëg ñu dellu ci mooy ngor jom fulla fayda te du benn Macky moo ñu koy xañ du benn Macky Sall mi nga xam ne après indépendance la ñuy wax ci la juddu ci la ñëw ci la jiite askanu Sénégal du kooku moom moo ñu koy xañ ma ne nañu dëggal suñu bopp nañu jaar ci yoon wi ñu war a jaar bu ñu am lenn lu ñuy rus bu ñu am lenn lu ñuy sedd parce que ki ñu ko séqal séddul rusul te nee naa leen jamono yii ñu nekk nii dina neex pour nit xeex moo tax kenn war ta ragal xam lu tax il est dans l'impasse fi mu nekk nii moom mooy mbëkk miir bi war mu fekk suñu fi mu nekk nii moom moo war a saraxu moom moo war ne nañ leen ànd kon jëmee ci li ngeen bëgg mais du ñun ñoo koy saraxu wala ñu koy ñaan foofu lañ toll ak moom su demee bay wax ay am dialogue si ak yeneen loolu moom la engagé xam nga lan la war a def bu bëggee génne ay détenus politiques su bëggee askan wi am jàmm ak yeneen ak yeneen nan ne nañ leen dem élection le 25 février waxatuñ le deux avril le 25 février et mën naa ne xam lu tax jël nañu ay milliards soo demoon tey jii euh, fële nga xam ne ni moom mooy Sénat CDC fépp foo mën mënti dem alal ji nga xam ne jël ti woon nañ ko pour def ko ci fi nga xam ne moom mooy élection yi pare na alal jooju mi ngi tege préparer nañ lépp pourquoi pas duñ dem élection le cinq février xol yi feex nit ñi am jàmm Sénégal judduwaat alternance am ndax mënatu fee toog keneen ku bëgg a jiite ku sénégalais woo lu ñu jox la Sénégal toog di la xool nag ak bët yoo xam ne nii mooy bëtu boo defee ñu jóg loolu moo fi des te lool nag mooy action sur action comme wax nañu tey action sur action amatul taxaw xaar beneen kuréel bu juddu beneen keneen ku am beneen gis-gis ñëwal ñu àndandoo booloo te loolu kenn du ko kemande ku dem ñu dem ku demul ñu dem incha allahu rabbi te yàlla rek lañ ciy àndal bu soobee nabil Moustapha dinañu réussir li ñu bëgg a def. te benn Macky Sall du ñu téye incha allahu rabbi te na ci ñëpp jàpp yéen sénégalais yi yéen la ñuy wax li ñuy xeex du pour ñun du pour les maisons de de euh, de du pour les institutions du pour keneen ak keneen ak keneen nañ leen taxaw nañ leen jàkkaarloo Macky sàll nañ leen nangu lu ñu moom suñu démocratie dootuñu ko kemaat ne dañ koy foqat ci ay loxoom. parce que reporter ay élection ci daaneel suñu démocratie la nekk ci la bokk te président Macky Sall ba fi nekkee ba tey jii démocratie bi day gën a wat fii ci àdduna bi. leen na nag mën nañ koo def mooy taxaw temm ci moom mii nga xam ne tey jii doomu réew mi la moo jiite Sénégal bu ñu taxawee ak moom jàpp jàmmaarloo ak moom foqati suñu démocratie keneen dootuñu ñeme adduna laay wax keneen dootuñu ñeme muy tubaab bi muy baa muy ku mënti doon keneen dootuñu ñeme ba lii nga xam ne ni moom la ñu warloo mooy téye suñu ay ressources téye leneen ak leneen ak leneen kenn dootuñu ñeme suñu defee li ñu def ak Macky Sall keneen dootuñu ñeme pour ñu pour di ñu dugg te loolu jot na sëkk fi mu nekk nii dafa reporter élection le 25 février dañoo bëgg a dem ci ay élection ci jàmm ak salaam ci nu mu gën a gaawee incha allahu rabbi te nee naa leen ségam ñun ñii ñoo ci nekk action rek action rek te action yi day ñëw ci kaw boppam tax gëm nañu lool incha allahu rabbi jërë ngeen jëf wax ji dëgër na waaye maa ngi ciy jéggalu nii rek la mën a demee parce que nit li nekk ci xolom rek la mën a génne jërë ngeen jëf